a tenu à s'expliquer avec le euh, patriarche euh, dans un discours clair et sans équivoque le premier ministre a confié à son hôte qu'il ne cautionnait aucunement les propos de l'intellectuel religieux d'ailleurs il ne connaît même pas l'homme qui qui euh, qui serait maanaam il ne connaît même pas l'homme qui serait ami à son excellence Bassirou Diomaye Faye les deux hommes se sont connus en prison Bref, Ousmane Sonko s'est carrément détaché des propos de Cheikh Oumar Diagne, de la polémique qui en jaillit avant de se avant de rebrousser chemin. Donc pour décrocher cet entretien nocturne avec Serigne Mountakha, le Premier ministre est passé par un des fils du patriarche. Donc ñu daal di voilà, donc tur bi SMM qui semble euh, désormais être son canal par exp par par par par, par excellence. Donc ma tënk ko ci wolof boobule xibaar gi nga xamante ni euh, euh, xew na amee na fële na la ca Touba. Euh, te suñu naataango Dakar Actu dégtal nu ko ak ñoom la nga xamante ni ñoom wax nañ euh, ko donc ñoom lan wax mooy ñu ngi leen doon wax ni ci exclusivité que gisee am na diggante ki nga xamante ni moom mooy xalif général de Mourides ak Ousmane Sonko am na sax ñu wax ni euh, gisee surprise la waaye ñun ci suñu wàll mën nañ leen a wax li nga xamante ni moom moo amee ca biir waxtaan wa nee nañ la amee ca biir waxtaan ba ak la sabab déplacement ba mbirum Cheikh Oumar Diagne moo ci gën a fës ndax kàddu yi mu yëkkati jëmale ko ci yoonu murit jëmale ko màggal gi et tamit loolu nekk coow loo xamante ni jib na ci réew mi askan wi nga ko doon euh, voilà waxtaanee ba ñu bëree ngi ŋàññi yéen a ngi gis sax ci xibaar yi ñenn ñu ngi réclamer la tête de Cheikh Oumar ñu ngi euh, wax ni dafa war a euh, démissionner. loolu bokkoon na nee na ci li gën a fës ci waxtaan wi ba tax na moom Ousmane Sonko di premier ministre bokk ci guvernement bi jiite ko sax autant pour moi nee na moom démarqué wu na ci moom laalewu ci takkewu ci ndax xamul Cheikh Oumar Diagne Cheikh Oumar. Bassirou Diomaye Faye mi njiitum réew mi la xamanteel ndax ca prison ba lañ euh, xamante euh, Madiambal Diagne bokk ci ñi appuyer thèse wi nu mel Cheikh Omar Diagne ngeen koy gis ci image yi noonu euh, li nga xamante ne suñu naataangoo Dakaractu lii ma leen di wax ci xibaar mu tukkee ci ñoom ñoom tamit daal di koy dëggal waaye nee nañ ki leen yombalal accès bi ci xalif gi SMM donc di doom ci xalif bi ndax entretien bi tamit guddi ca la xewee donc lii mooy lii yëkkati coow li ci réew mi ñii jàpp ni mbirum Cheikh Omar Diagne moo yëkkati woon Sonko ba li mu waxtaanee ak xalif ba ci biir maanaam tey jii nii lii la ndax moom nee na xamul Cheikh Omar Diagne xamul Cheikh Omar Diagne tey tamit ki xam Cheikh Omar Diagne mooy njiitu réew mi ndax ñoom ñaar ñoo nga xamante fële ne la ca euh, ca prison ba loolu mooy li nga xamante ni moom moo jib ci bëccëg bi ñu daan ñu koy leeralal ci mbir mi waaye nag. lii tamit nag bi mu jibee ba nu yaatal ko ba mu tas ci réseaux sociaux yi door waar indil ma réplique bi nga xamante ni am na ca ndax député Cheikh Thioro Mbacké nga xam ne léppi gouvernement bi ca tuubaa defe naa moom mooy ki nga xam ne moom mooy yore wàllu woowu noonu indi na ci réplique la mu ca indi réplique nag mbokk yi ci laay bëgg ñëw ak yéen laata balaa maay tëj maanaam chapitre bi ak soxna Awa Mbàkke bu daaru mus si nga xam ne ci njabootu borom tubaab bi la bokk rawatina njabootu maam Cerno Ibrahim radiallahu anhu jiite jigéenu Pastef yi dafa la ca daarul moxti lii la Cheikh Thioro Mbàkke wax ci page officielle am ca Facebook lan la wax nee na gisab biir néeg ci ñaari nit képp waaye am na ñoo xam ne ñoo ngi tëb di dal waxtaane maanaam giseb biir nekk ci ñaari nit képp maanaam njiitum gouvernement bi premier ministre Ousmane Sonko xalif sénéral des Mourides ñu koy ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te wér ak ki nga xamante ni ñoom ñaar ci seen waxtaan bi eh, ca biir néeg ci seen daanaka loolu la ñuy tuddee maanaam eh, rencontre à huis maanaam visite nocturne lool waaye ndaje bi c'était à huis loolu ñëpp xam nañ ko ci xibaar ndax ñoom ñaar a gisee gise seen gise biir néeg maanaam wii clos léegi nag Cheikh Thioro Mbacke ngir weddi ngir tontu ñi nga xamante nii boobaak léegi ñoom jàpp nañ ni mbirum Cheikh Omar Diagne lañu waxtaane waaye bu ñu yemoon ci wax ni mbiru Cheikh Omar Diagne lañu waxtaane waaye dem nañ ba xamal ñu ne la ñu fa waxtaane ak position bi nga xamante ni Ousmane Sonko euh, jël na ko man nag ci taxawaay taskatu xibaar gi ma amee gëstu naa mboolem réseaux sociaux yi mboolem réseau officiel canaux officiel Ousmane Sonko euh, woote nañu jotuñu euh, loo xamante ni mën nañu leeralal ni wax na lu nu mel waaye gisuñu fenn fu Ousmane addo ci li nga xamante ni moom mooy mbir mi. kon ñi ci addu loolu laa leen doon leeralal noonu lii nag Cheikh Thioro mbàkk nag indi réplique wax ko ne gisa biir nit ñaar nit képp am na ñuy tëb di dal. ba ñoom mën nañu wax askan wi maanaam la nga xamante ni moom lañ fa waxtaane lii la Cheikh Thioro wax waaye Cheikh Thioro yemu ca bu ngeen demee ca page am yokku na ci ni mu dolli ca ne ak lu mën a xew réew mii dina tegu ci yoonu jub jubal jubanti ndax jarul yàkkamti léegi rek ngeen ndànd Cheikh Mouhamadul Mountakha nee na yàlla na fi yàgg lool te wér na fi yàgg lool te ak mboolem kilifa diine ci dëkk bi. lii nag euh, euh, député Cheikh Thioro Mbacké man woo naa ko téléphone euh, jotuma ko waaye lii bu nu ko amee ci moom ci maanaam li nga xamante ni moom la def comme moom la indi comme précision par rapport ak coow li mu doy kon loolu lañ leen doon yaatalal. balaa nuy ci waxtaan wi ma dikk ak yéen li nga xamante nii moom laa taataan ci soxna Awa Mbacké ngeen mu nekk responsable Pastef jigéenu Pastef yi nga xam ne ñoo nekk daaru Moxti di sotu borom daaru waaye bokk ci njabootu euh, borom Touba bi mbokk yi ma daal leen di baaxee li nga xamante ni soxna si wax nañu ko mu nekk ay précision par rapport ak mbir mi kon mbokk yi nu ànd euh, teewlu soxna si. waaleykum waaw yaa Moussa ñu ngi lay ziare bu baax. kon mbokk internautes yi ñuy teewlu Sunugal 24 xam leen ni moom mooy responsable politique ku jigéenu Adri Pastef fii nga xamante ni ñoom ñoo nekk ca Daaru Muxti donc euh, Mbacke Balla nu bëggoon a leerlu rek ci xibaar gu nu jot suba ak léegi réew mi ngi koy waxtaane ci gisep euh, premier ministre Ousmane Sonko euh, mook xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha ci guddig altine gi. donc mu mel nii xibaar yaa ngi ñuy bëgg a xamal ni abordé nañ fa sujet Cheikh Omar Diagne mi waral coow ci sortie yi mu def mu mel nii ci xibaar yi ñu jàllale ñu ne Ousmane Sonko wax na kilifa gi ni ko euh, man ànduma ak Cheikh Omar Diagne ca la mu wax te sax man xaw ko ndax moom jomaay la xamante ndax ñoom ñaar ca kaso ba leen xamante. waaye ma gis sa mbokk Cheikh Thioro Mbacké moom it indi ci ay précision jàpp ni gis sa biir nit ñaari nit képp. biir néeg ci ñaari nit képp waaye am na ñoo xam ne ñoo ngi tëb di dal naan xam nañ lañ fa waxtaane yan précision waxtaane yan précision nga ma mën a apporter ci coow noon noonu Mbacke Bal euh, jërëjëf yaa saa ñu ngi lay nuyu di la ziyaare bu baax euh, di feddale suñu cofeel ak suñu kóllëre ci yow di nuyu mbokk internet yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ñuy teewlu di teewlu suñuy kàddu di ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na yàlla gën ko dëgëral gën a yokk fanam ba lii mu mëbata liggéeyal Serigne Touba mu egg di ñaana suñu njiit yi président Ousmane soo ak le président Diomaye yàlla jàppale leen ba fi ñu bëgg a eggale réew mi ñu eggale ko fa. yaa Moussa ñu ngi lay sant bu baax ci question bi parce que comme ni nga ko waxee rek ni ko sama mbokk moom waxee ne Serigne Cheikh Thioro yaakaar naa ay kilifa bu ñuy jógee tëju ci biirum nekk waxtaan la ñuy waxtaanee du sax ay teggin yow bu fekkoon da la faa fekk nga di ko rapporté waat wala di ko nettaliwaat lañu waxante ci biirum néeg lañ ko waxantee te jàpp naa ne sëriñ bi génnul waxaat ko te le président Ousmane Sonko le le premier ministre bu Sénégal le président de PASTEF génnul wax kenn ne nangam laa waxantee sëriñ Mountakha kon nit ñi dañoo war a delluwaat ci yar dellu ci teggin te dellu ci ak teey nga xam ne le président Ousmane Sonko amul benn sujet boo xam ne ragal na ko aborder. amul benn sujet boo xam ne dina ko daw. amul benn sujet boo xam ne dina ci def volte face. bis bu génn ci jotee leeral jot. moom dana génn lam ci war a leeral la ci askan wi war a xam dana leen ko xamal ba mu leer naan mm-hmm. kon nag jàpp naa ne li gën ci sénégalais yi. Mm-hmm. ci ñun ñëpp. mooy ñu toog taaxeerlu mhm. te déglu ko ndax moom comme mooy nday mbill gi te ba muy tëjoog sëriñ bi kenn fekkewu ko mhm. du ay teggin sax ñu ciy jéem a extrapoler mhm. wala ñu jéem ci def ak gisaane parce que rek laa ko mën a tudde yaa ndax ndax pour bañ la teelu yàgg ci téléphone bi coowal seex Oumar Diagne bi ak ni ci Touba ñenn ñi pour ba ñu tudd officiellement ñi nga xamante ni dégguñ la ñu jël ci position waaye eh, nit ñi ngi ci épilogue ku ci nekk di wax sa xalaat ndax mënta doon lu mën a gàllankoor dara tey ci eh, régime bi ndax it euh, mbir yi juróom-benn weer la amagum coow lu nu mel Égypte ndax mën mënta indi benn gàllankoor ci diggante tey jii ni état bi ak rapport yi moom ak kër diine rawatina tey nga bokku ca njabootu borom Tuuba. waaw xam nga euh, yaa Moussa. Hmm. dafay am lu ñuy wooyee responsabilité individuelle. Hmm. maanaam nit koo xam ne da nga ko jël individuellement moo taxaw ci bërëb di wax. Hmm. lam wax moom na engagé. tey jii ñun li ñu constaté ñun ñi nga xamante ne au de la politique. dañoo bokk ci njabootuk sëriñ bi bokk ci njabootuk diine bokk ci njabootuk sëriñ Touba bokk ci njabootuk Alaaji Maalik li nga xam ne mën nañ ko constaté muy loo xamante ne les faits sont là les faits parlent d'elles-mêmes mooy lan mooy que ne worma euh, cër euh, ay teggin akub yar lañ gis ne suñu njiit yi loolu lañ woon suñu kilifa diine yi ñu gisit ne yéen ju rëy rëy rëy lañ am pour këru diine yooyu euh, suqaliku tey bu ñu jëlee